kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram الذي له ملك السماوات والأرض الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم أحمده حمدا يليق بجلاله وكماله وحمدا كما حمد نفسه وحمدا كما حمده الشاكرون والمؤمنون والصالحون والأنبياء حمدا لا ينتهي مع تداول الزمان حمدا إلى يوم اللقاء حمدا دائما سرمدا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 مع شدة الزمن وقلة المؤونة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين ورضي الله عن شيخنا وحبنا أبي العباس أحمد التجاني الذي به نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى وبه واسطة بيننا وبين ربنا ورضي الله عن شيخنا أبي إسحاق مولانا الشيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه الذي أفاض إلينا بفيضه وأسقانا كؤوسا نرتوي بها إلى يوم القيامة يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أما بعد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nii ñëpp di ziyaare ñëpp di wàccee ku nekk ak wàccuwaayam di leen ñaan yàlla jàmm ak xéwal ak naataange ak sax ak gëm yàlla ak dund gu doy te ànd ak topp yàlla deegu rafet sedd ba dajeg yàlla ñu dajaale ko ak ngëm yàlla waaye di liggéeyal diine yàlla ji di e, topp si ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nu ñu ko ñaanelee noonu ñu ngi sàkku si yéen tamit ngeen ñaanal ngeen ñaanal ñu ko rus naa delloo ñaanal jullit koo xam ne dafay ñaanal mbokkam doomi aadama am na si doomi aadama yi nga xam ne nga tàllal leen loxo ñaan leen rek teñ am ko rus naña rus nañ laa delloo sa ñaan il faut ñu may la seen kersa doo ko dañ te yàlla ëpp kersa képp ki am kersa yàlla gën a baax képp képp ku baax doomi aadama da ko ñaan amul ko sax mu rus laa wax ne la ooma oh si mbaaxam mu dem uti ba am ñëw jox la yàlla nag moom ñàkkut ku koomal la magasin mi di jeex dégg nga eh, lahu xazainu samawati wal ardi te moo gën a baax moo gën a tabe moo dàq joxe kon nag nit su ñaanalee mbokkam nit eh, mbokkam julitam tàllal loxo yàlla di ko ñaanal yàlla rus naa delloo ñaan googu noonu bu charte ay ñaan yi dajee kon nag ñu leen ñaanal yàlla di sàkku si yen ñaan euh, tey nag ñi ngi ñëw ak si benn xasida bi nga xam ne euh, ñun ñoo ko bindoon si xaqi góor gi nga xam ne mm, wuy jina boromam di alcaalimu di alcallaama addaraaka aldaaiq alfaqih almutasawifu alkabir almujahid fi sabili illahi almurabbi alkaamil alwaaciz alxakim di alustaz Muhammad uh, wala alustaz uh, Ahmad ba nga xam ne mm, génn na àddina depuis barka démb xasida bi ñu ngi ko woy le neuf si juróom-ñetteelu weer bi si 2023 di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que yàlla moo wax ne wa bashiri sabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ulaa'ika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaa'ika humul muhtadun yàlla dafa wax yonent bi ne ko bégalal ñi nga xam ne dañuy muñ mooy muñkat ñi ñen ñooy ñooñu mooy ñi nga xam ne su leen musiba dalee duñ def dara lu dut dañ naan ne ñun si yàlla lañ jógee te si yàlla la dellu wax jooju nag wax ju rëy la lu tax ma ne wax ju rëy la parce que doomu aadama soo amoon saw xarit wala nga am sab doom wala nga am sa wóllëre wala nga am sa baay wala nga am sa yaay wala nga am saw soxna mu jigee fi war a dem armée sa guerre mu leer na leen mi ngi dajeeg ay soldar yi nga xam ne manqué wuñ dara lii di bombe automatique lii di bombe bu ñu sànni lii di pistolet lii di ay auto guerre lépp ñu ngi ko yor te mi ngi war a jàkkaarloog ñooñu te yow kooku yaa ngi ko bëgg sa xol bi da nga ci trop si nga ragal mu ñàkk ba kanam ku si am saw mu leer na la mi ngi dem rëbës wala beneen koso bu mënta doon mu leer na la koso googu tëdduwaay ba baaxut lekk ga baaxut naan ga baaxut dara baaxut fa jikko yo baaxut fa dañ fay laate soo ko bëggee da nga tiit waaye ku si am sa xarit walla sa doom walla sa wóllëre mu war a dem dajeeg ab buur buur boo xam ne gëm yàlla la fees dell buur boo xam ne euh, mbaax la fees dell buur boo xam ne xol ba dara ki ñaan nekkul fa buur boo xam ne manqué wu dara buur boo xam ne buggut lu du taral doomu aadama soo ñëwee dara du la fa métti sa doom wala sa soxna wala sa euh, sa doom wala sa xarit wala sa wëlëre wala sa ndey wala sa baay war a dem dajee buur boobu noonu doo tiit si nekkam ak buur boobu noonu parce que xam nga ne du julee si buur ba lu du rafet lenn rek ngay méttilu mooy lum nekkoon ak yow daal di taxale ko ak yow yàlla nag mu ngi bëgg a xamal si aaya boobu noonu ne la wa bashiri sabirina alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam ne su leen musiba dalee dañ naan ñun si yàlla lañ jógee te si yàlla la ñuy dellu yàlla mi ngi bëgg a xamal si aaya boobu na leen kii nga xam ne mi ngi nekkoon ak yéen mi ngi wuy si buur boo xam ne amul lu dul taraanga amul lu dul teralaate amut lu dul mbaax waaye amut lu dul kóllëre amul lu dut dégg nga euh, teral doomi aadama tey nit kooku noonu si man la ñëw man yàlla kon yéen bu nekkee nekkam la ak man waru leen saa tiit parce que xam ngeen ne maa maa gën a baax képp kii baax waaye nag may naa leen ngeen métitlu si leen lan noonu mooy lum mu nekkoon ak yéen ba pare daal di teqalikoon ak yéen te xam ngeen ne ku amoon njëriñ la si yéen mu paasi foofu na leen bal sax su ngeen demee ba muntu ñàkk tiit maanaam su ngeen demee ba mënu leen ñàkk jooy wala mënu leen a ñàkk métitlu dégg nga ngeen métitlu si taxalikoo gum taxalikoo ak yéen waaye nag nekk gu muy nekk ak man war waru leen saa tiit waaye nag ñi nga xam ne yegg nañ fa yàlla dëgg ñoom duñ tiit si kii taqalikoo gum taqalikoo ak ñoom waaye duñ tiit si nekk ak gu muy nekk ak yàlla parce que xam nañ ne su demee fa yàlla yàlla dana ko teral waaye xam na ne nekk gum nekkoon fii si addina bi dem fa yàlla moo ko gën parce que addina bi addina bi nga xam ne la mooy yàlla yi si la fees dell waaye rambaaj gi si la fees dell seytaane si la fees dell te yàlla moom lu sell rek fa nekk kon tey si jugee fii nii dem fa yàlla dégg nga loolu dëgg dëgg dëgg nekkul naqar dégg nga naka noonu tamit fa mu leen féetee woon ñoom bañ xoolee yàlla xam nañ ne yàlla moo mën na leen a féetee foofu noonu moo tax ñoom duñ tiit kon ñi nga xam ne dañoo yegg si daraja al islam wala ñoom su nit gaañoo duñ tiit si nekk gu mu nekk ak yàlla waaye si leen rek la ñu tiit mooy nekk gu mu nag ñoom xëy dem bay leen fi waaye nag ñi nga xam ne yegg nañ si daraja al te mooy al ñoom duñ tiit si lenn duñ tiit si dem gu ñuy dem gii euh, aji dem ji di dem fa yàlla nekk gum nekkan ak ñoom parce que xam nañ ne su demee yàlla dana ko taral te fa mu leen féetee woon yàlla dana leen féetee foofu noonu kanaa ñoom dañuy topp ndigal rek di roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom kii xam moo la gën a xam kii tedd moo la gën a tedd kii baax moo la gën a baax ki topp yàlla moo la mën a topp yàlla te moom euh, méttalu na lii di deewu euh, baytaxam di Hamza ak yeneen i deewu jullit ñi moo tax dañ koy roy si loolu rek waaye duñ si def li nga xam ne yàlla sib na ko kon leen rek la ñuy def mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme nu ko yàlla diglee si alquran di wax ne ku màgg dem na waaye ponkal si ponkali lislaam yi dem na ponkal si ponkali tariqa bi dem na ponkal ci ponkali faydu bi dem na koo xam ne safir la woon ci lislaam koo xam ne muslix la woon waa'id koo xam ne mujahid la woon dem na koo xam ne yàlla wax na si xaqam ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen te la shakka ne Oustaz Ahmed ku ragaloon yàlla la waaye ku xamoon la ku xamoon boromam la waaye ku amoon xam la ñaar yooyu mu dajale wan na ne ku ragal yàlla la parce que su ragalutoon yàlla lu am nii sa xam si cër bii du ko fa am yàlla dafa dafa teg charte mooy su ngeen ragalee yàlla yàlla xamal leen moom nag ginnaaw bam ragalee yàlla la ko yàlla jox lii koo xam ne xakim la woon ba yàlla wax si xaqam ne yu'ti al xikmata man yasha wa man yu'ta al xikmata faqad utiya xayran kathira yàlla mooy jox xam yàlla mooy jox xikma ku ko neex te képp ki nga xam ne yàlla jox na la xikma yàlla jox na la yiw bu rëy ñun mën nañoo seede ne Oustaz Ahmed ku amul xikma la parce que soo digloo waxam rek xam ne xakim mi ngi nii xakim bu fees dell mi ngi nii di wax kon bokk na si coobare yàlla gi nga xam ne yàlla tànn na leen jox leen xikma koo xam ne yàlla wax na si xaqam ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti yàlla seede na ne moom moo fi nekk mooy yàlla kenn du moom malaaka yi seede nañ ko borom xam-xam yi seede nañ ko te si borom xam-xam yooyu si la oustaz Ahmed bokkoon koo xam ne yonent bi wax na si xaqam ne al ulamaau warasatul anbiyaayi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne wa inna fadla alaalimi ala alaabidi ka fadli alqamari ala saa'iri alkawaakibi wa inna alulamaa warasatu alambiyaai inna alambiyaa lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman innama warasu alilma fa man axadahu axada bi xadin waafirin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngëneelu borom xam-xam si jaamu ko ci yàlla koo xam ne amul xam-xam borom xam-xam bi nu mu gënee jaamu ko ci yàlla bi mooy borom xam-xam bi nga xam ne mi ngi topp yàlla ànd ak xam-xamam nu mu gënee jaamukati yàlla bi nga xam ne mi ngi jaamu yàlla waaye amul xam-xam mi ngi mel ne nu euh, weer bi gënee mboolem biddiw yi parce que weer bi leer na biddiw yi leer nañ waaye su guddi jotee ñun si weer bi la ñuy gën a teg bët parce que moo gën a leer borom xam-xam tamit ku am leer la leeru jaamu am ak leeru xam-xamam jullit bi tamit bi jaamu yàlla ko am leer la waaye moom leeru jaamu yàlla rek la am. te ku dajalee leeru jaamu yàlla ak leeru xam-xam yaa leer ki nga xam ne leeru jaamu yàlla rek la yor mu waxaat ne innal ulamaa warasatul anbiyaa yi ba xadis bi jeex nee na borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi te yonent yi doon luñ leen si eh, maanaam donnuloowuñ borom xam-xam yi xaalis maanaam dinaar wala wurus dégg nga alal wala wurus wala xaalis waaye nag ñi ngi donnaloo borom xam-xam yi xam-xam borom xam-xam yi jëleewuñ si yonent yi kaalis wala alal déedéet waaye nag ñi ngi jëlee si yonent yi xam-xam loolu moo tax ñu doon leen képp ku jël si xam-xam boobu noonu jël na si cër gu rëy ñun nag ñi ngi seede ne kon Oustaz Ahmed bokkoon na si ñooñu nga xam ne doon xoon nañ yonent yi si ñaari côté doon xoon nañ yonent bi si xam-xamu sharia parce que ku amoon xam-xamu sharia la baxrun zaxirun dégg nga bi mawjihi euh, dégg nga waaye nag ku doonoon yonent yi la si xikma ndax xikma ba su waxee nga xam ko waaye nag ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaawu yàlla ne borom xam-xam yi rek ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla gaa ku borom xam-xam da nga ragal yàlla waaye doomu aadama mën ngaa ragal nit te xamoo ko waaye nag soo ko xamee xam sañ-sañam xam kàttanam xam dooleem nga ko gën a mën a ragal yàlla nag borom xam-xam yi nga xam ne xam nañ ko dëgg-dëgg dëgg xam xam jalaalam xam jamaalam ñoo xam dëgg-dëgg nuñ koy ragalee te oustaz Ahmed bokkoon na si ñooñu wuteeg ñi nga xam ne ragal nañ yàlla ni rek mais xamuñ ko yàlla nag nee borom xam-xam yi dëgg-dëgg ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla te Oustaz Ahmed seede nañ ne si borom xam-xam yooyu la bokk ponkal dem na ponkal mi nga xam ne <coughs> yàlla wax na si xaqam ne laa yastawi alladina yaalamuna walladina laa yaalamuna mooy euh, ñi nga xam ne xam nañ ak ñi nga xam ne xamuñ duñ yem mukk daraja fa yàlla kon nag Oustaz Ahmed seede nañ ne borom xam-xam la woon kon bari nañ ñum raw nga xam ne seen daraja ak moom daraja am yemuñ fa yàlla parce que moom borom xam la ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne yarfaci llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ne yàlla ne yéen jullit ñi dinaa leen yëkkatil seen daraja ci si si man waaye nag ñi nga xam ne am nañ xam seen daraja dinaa ko gën a yëkkatiwaat si kaw jullit ñi te ñi ngi seede na Oustaz Ahmed si borom xam-xam yooyu la bokk waaye nag borom xam-xam bu dem na ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne wala bokk yonent bi e, wax na si xaqam ne ida maata alaalimu talama fi lislaami zulmatun laa yasudduha shay'un ila yawmi alqiyamati nee na borom xam-xam su dee l'islam am na ab damm-damm bi nga xam ne dara mënu kaa fatt ba bis dégg nga ñu ngi seede ne Oustaz Ahmed si borom xam-xam yooyu la bokk gaa ñoom génn àddinaam damu damu la bu rëy si lislaam ndax xam-xam dem na damu damu la bu rëy si faydu bi ndaxte ku amoon ku xamoon yàlla dem na waaye damu damu la bu rëy si tariqa bi parce que ku xamoon tariqa bi te di ko jàngale te di nekk mu rab bi dem na dégg nga waaye lu tax yonent bi ne damu damu boobu noonu kenn du ko mën a fatt parce que borom xam-xam yu nekk dafa am fu ñu taxawee borom xam-xam nag bu nekk soo dee euh, su gaañoo dégg nga barabam boobu beneen borom xam-xam mën na faa taxaw waaye nag ba tey du tere kenen manqué na rek parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a xam si mbindeef yi ba mu demee am na yeneen borom borom xam-xam yu ñëw doon na ko waaye ba léegi barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma fa dara du ko saxaaba yi noonu yeneen taabiin yi noonu yeneen ulama yi noonu ak shurafa yi ak salihuna yi dégg nga waaye ponkal mu rëy dem na koo xam ne wax nañ si asar jëlee si sallallahu alayhi wa sallam ne dégg nga maa qabada allahu aaliman illa kaana zahratan fi l islaami laa tusadd nee na yàlla du ngëpp borom xam-xam jël ko lu mooy lislaam am na benn bënn bënn bi nga xam ne dara du ko fat di la yeneen borom xam-xam yi ñëw nañ mais du du tere barab boobu nag moom dara manqué na fa rek dégg nga géej na waaye ay mujalladaat dem na waaye ku xamoon dem na ku baaxoon dem na koo xam ne yàlla wax na si xaqam ne wala yonent bi wax na si xaqam ne inna allaha laa yanzicu alcilma min annaasi intizaacan yantazicuhu minhum bacda id actaa humuhu walakin biqabdi alculamaai fa ida lam yabqa caalimun ittaxada annaasu ru'asaa juhaalan yastaftuunahum fa yuftuuna bigayri cilmin fa yadilluuna wa yudilluuna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne du nocc xam-xam jël ko si mbindeef yi ginnaaw bam leen ko joxee ba pare parce que yàlla ku baax la du maye di nangu waaye borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la joxoon xam-xam lay faat jëlee leen fi su leen fi jëlee ñoom ñoo mënoon a leeral xam-xam yàlla jële leen fi léegi du des lu mooy ñu réer xamuñ dara di wote yoo xam-xam ñooñu nag lay nit ñi jël def leen seen njiit nit ñi di laaj ñoom ñi tontu nit ñi si xam-xam dégg nga ne dañuy tontu nit ñi si xam-xam te xamuñ dara réeral nit ñi réeral seen bopp tey kenn si borom xam-xam yooyu yonent bi junju ne yàlla dana leen jël jëlaale xam-xam kenn dem na si kon duñ def dara lu dul parce que yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mi ngi fi woon ba ko yàlla jëlee tiituñ lu dul lam ànd ak si xam-xam ak neex ak wéttal gum nekkoon ak ñun tey kenn si ñu ko donnoon ñoo dem moo dem tiituñ jooyuñ lu dul xam-xam bu mu yóbbaale ak mbaax bu mu yóbbaale waaye ak xikma bu mu yóbbaale ak irfaan bu yóbbaale ak ak wéttal gum nekkoon ak ñun diñuy gindi diñuy xamal loolu tiit nañ si tiit nañ tamit si xadis boobu nga xam ne yonent bi waxoon na ko ñu wax ko sànq gis nañ ko si Oustaz Ahmed Ba parce que kenn si ñoom dem na ku dem na koo xam ne koo xam ne kenn la si ñu téyewoon diine ci ku dem na koo xam ne sikki sàkkuñ si wilaayam sikki sàkkuñ si mbëggeel gum bëgg yàlla ak mbëggeel gu ko yàlla bëgg ak mbëggeel gu ko yonent bi bëgg ak moom mbëggeel gum bëgg yonent bi ak mbëggeel gum bëgg Seydina Cheikh ak Seydina Cheikh mbëggeel gum ko bëgg ak mbëggeel gum bëgg sëriñam Maolana Cheikh Ibrahim Niass ak mbëggeel gu ko Maolana Cheikh Ibrahim Niass bëgg mbëggeel gi am na ñi nga xam ne dañ koy xam si almukashifa yàlla moo leen ko wooye woon carrément ne kii bëgg naa ko waaye am na ñi nga xam ne yegguñ si si daraja boobu fenn rek lañ mën a xamee mbëggeel gi mooy kii niñ euh, jullit ñi bëgg guñ ko bëgg ak lu mu liggéeyalee diine ji ak sell gum sell si li ñu xamee ki yàlla bëgg na ko ak wali yi bëgg nañ ko parce que yàlla su bëggee doomu aadama dafay woo jibril ne ko diw bëgg naa ko jibril woo waa asamaan ak waa suuf na leen yàlla bëgg na diw bëgg leen ko su boobaa kooku kenn du ko bëgg ludul ñu baax ñi waaye ñu bon ñi rek koy euh, bañ te duñ ko bañee ludul seen bon ga waaye nag moom xam nañ ne kii ku baax la kii nag di Oustaz Ahmed Ba dem na waaye kuñ xamoon ne ne yàlla bëgg na ko si liñ ko xamee mooy si euh, diine gum génnee àddina ak si tariqa gum génnee àddina ak si faydu bii mu génne àddina ak gindi gu mu doon gindi nit ñi ak nit ñi bëgg guñ ko bëggoon ak moom bëgg gum bëgg jullit ñi ak bëgg gum bëgg yàlla ak bëgg gu ko ak bëgg gum bëgg sëriñam Seydina ak bëgg gum bëgg sëriñam eh, Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu parce que yàlla kenn du ko bëgg di ko jëfee mu ñàkk laa bëgg parce que moom <coughs> dégg nga soo ko lebalee lu baax dalay fay ful bi te moom mën nañoo seede ne ku bëgg yàlla comme que nag bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko dégg nga kon kooku dem na waaye mi ngi demee si at yi nga xam ne at yu néew la at yu bëri la at yu néew la si ki nga xam ne si juróom fukki at ak lu teg tuuti juróom fukki at ak benn si la génnee àddina di at yi nga xam ne nit dana ko am dundaat lu tol noonu doogu doogu génn àddina di at yi nga xam ne nit dana ko am dundaat lu jege loolu doogu génn àddina nga xam ne yonent yi sax ñu si bari romb nañ at mu yooyu di dem ñu ko si ku ko si ñu ko si romb tuuti la da dañ leen di waaye di at yu bari parce tasaare na fi loo xam ne fii ba bis penci ila yawmil qiyaamati du dagg nit dund na junni at nit dund na lu jege téeméeri at te deful lu tol noonu waaye nag dama wax ne loolu mooy aadaay borom xam-xam di aadaay yonent yi aadaay borom xam-xam yi ñoom yàlla moo leen gën lu ne aadaay yonent yi yàlla moo leen gën lu ne te àddina bii nga xam ne comme nuñ ko jàngee woon rek ne koso ne kosooy jullit la waaye ajjanaay ku gëmul yàlla la ñoom àddina boobu gënalul leen pan moo leen gënal mooy àllaaxira bee nga xam ne ajjanaay jullit la waaye koso la si ku gëmul yàlla kon nag ñoom nekk guñ nekk fii nii ñàkk pexe rek la ne yàlla moo leen fi teg il faut ñu ñu liggéeyal ko mais su ndogal ak yàlla ñëwee ne ñoom dañuy génn àddina ñoom dañ koy sante yàlla parce que ñi ngi dem si koo xam ne ku tabe la si koo xam ne dégg nga seen xarit la si koo xam ne daf leen di teral si koo xam ne leer kese la si koo xam ne amul dara lu dul bànneex ñoom foofu moo leen gënal si àddina bii nga xam ne chaque jour ñi ngi wax kenn du dégg chaque jour ñi ngi gis ay mooy yàlla chaque jour nit ñaa ngi leen di naqadal si seen jëf bon lu tax ma ne aadaay borom xam-xam ne ñoom dañ teel a génn àddina suñ teel a génn ba tey seen diir su ñëwee man seen app su ñëwee ñoom duñ si naqaru dara dégg nga naq naq àddina borom xam-xam teel a gaañu yàgg nañ kaa gis ma jox la si ñaari misaal rek kii di al imam al shafii ba muy gaañu mi ngi am juróom fukki at ak ñett kon moom lum imaam oustaz Ahmed moo ko njëkk gaañu lu toll ni ñaari at waaye tasaare na fi loo xam ne nit dund na fi ay junni at tasaare wut ko si lan tasaare na fi usulul fiq nga xam ne si moom la jugee tasaare na fi ab ngir goo xam ne. dégg nga charqan wa garban ñu ngi ko fay jàng kii di al imam annawawi yaxya ibnu sharafiddin ba muy gaañu mi ngi am ñeent fukki at ak ñeent nga xam ne sax moom moo njëkk a gaañu ba muy gaañu lu ndaw la kooku taalif na fi ay ay téere téere lii di al arbaun annawawi moo ko taalif sharhana sahihul Bukhari dégg nga moo def Riyadu Salihin nekk kàngam gu ñëpp ràññee si xam-xam ba muy gaañu ñeent fukki at ak ñeent la am kon aadaay borom xam-xam ñoom dañuy dund lu néew waaye dañuy dund lu bëri dañuy dund lu néew mooy lan seen at yi ku koy continuer gaañu at yu néew lay doon waaye nag dañuy dund at yu bëri mooy lañ dund lañ tasaare nit dana fi dund téeméeri at te du ko mën a tasaare. radiyallahu anhum ajmain kooku nag <clears throat> di tey moo ñu koo xam ne moo doon gindi si xam-xam si laan déglu si xam-xamam lañ laan kontaanee waaye si mbaaxam lañ laan roy waaye si lewetam lañ laan xool si taalibayam lañ laan sóobu kooku tey moo dem bàyyi si dem dem si bi nga xam ne nit taxawoon nga suñ la waxoon ne kii at bii lay dem doo ko gëm dangay ngay ne dana fi dund at yu dul jeex doo ko dem dégg nga ndax cofeel goo amoon si moom ak mbëggeel goo amoon si moom ak xam-xam gu nekkoon si moom waaye jaam ak yaakaaram jaam ak pexeem yàlla ak dogalam duñ def dara lu ñaanal ko yàlla yàlla teeru ko ci bi teeru ko sëriñam Seydina Ahmed Tidiane Abul Abbas teeru ko sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Abu Ishaqa teeru ko mboolem jullit ñi awliyaa yi ak ambiyaa yi ak shurafa yi teelu ko teeru ko si seen daraja ñoom ak moom si uh, xam-xamam gu mu am ak si daraja gu am fa yàlla yàlla jéggal ko yàlla bu yàlla topp dara yàlla na ko yàlla jéggal mboolem rëcc rëcc yàlla ko yàlla fulal ay tiyaabaam si daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñooy famem di ay mbokkam ñu ngi leen jaale di wax ne yal na leen yàlla kutalal yal na leen yàlla miisloo yal na leen yàlla muñloo yal na leen yàlla jox yiw waaye ñi nga xam ne ñooy ay mbokk taalibayam si diina ji ak si tariqa bi ak si faydu bi ñu jaale si kenn ku ponkal kenn ponk gi nga xam ne wàññeeku na si ñoom di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla may xolu muñ dégg nga yàlla wuutal wuutal fi ay boromi xam-xam boromi xam-xam di la sax moom place bu mu taxawee kenn du ko fat waaye nag yàlla dekkilaat ñeneen ñi nga xam ne danañ mën a joxe xam-xam comme nu mu si daraja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal màggaay borom xam-xam moo ñu jàngal deewu borom xam-xam nu mu méttee ak nu foore fooree deewu borom xam-xam nu mu réyee te borom xam-xam dee na jullit dee na dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettalu ko maanaam jooy ñun nag duñ def lu si moom. moo tax ñu bind ab marsiya ab qasida di si jaale Oustaz Ahmed di ko ñaan yàlla di wax tuuti si jalooreem di wane ne ku màgg dem na ma waxoon ne <coughs> marsiyatun lil allaama ad-daraaka Oustaz Ahmed Ba ne baka zamaanu ala fuqdaani umdatihi yaa hulmatan xadatat li mawti gurratihi bakat bihaarun wa ahlul ardi xaatibatan xatta baka man baka fi lkawni jumlatihi yaa gurbata alcilmi lamma maata qaa'iduna qutbu ruxa kaashifu alasa liquwatihi shamsu almacaarifi man faadat maarifuhu sharqan wa garban bila shakkin li izzatihi xibrun min alsharci tawdun shaamixun jamaca albaxrayni dawqan camiqan za lihimmatihi saada alanaama bicilmihi wa xidmatihi xatta bada nayiran lana libahjatihi maata alxaliimu wa baata alxuznu aayatana والدمع منهمر لأجل رحلته أستاذ أحمد به أرسي للوعتنا والله آتيه رضوانا برحمته مات الحليف حليف الشيخ طالبه برهام أعني بلا وهم لفيضته إذا تحدث زال الجهل من خجل حتى أزال قلوب القوم min min shibahin min shubahin yujilluhu xibbuhu wa xibbuhu alanan li qurbihi xadrata almawla bi xudwatihi laqad xawaa maa xawaa fa naala martabatan lillahi maa qultu fi raybin wala safahi kalbaxri fi mawjihi والصبر ديدنه والحق غايته إذا استعنت به والله أسأل an taghshaahu rahmatuhu walcheikhu kaafiluhu fawzan bi xurmatihi ala annabiyi wa alihi mada zamani azka salaamaani daa'iman bi rahmatihi ala tijaani ma'a al-asxaabi jumlatihim ximaayatu lxaqi min acdaa bi satwatihi ma ne marsiyatun li ab marsiya la di allaama ñeel boroom xam-xam bu màgg ba a daraaka ki nga xam ne mooy jotukaayu bépp fann Oustaz Ahmed Ba ne bakaa jooy na azzamaanu jamono ala fuqdaani umdatihi si ñàkk kenn si kenoom yi yaa sulmatan e eh, woona ab dammu-damm boo xam ne xadasat xew na si diina ji li mawti xurratihi ngir <coughs> deyak sangam ba me ne jamono de jooy na lu tax mu jooy ndax ñàkk kenn si ñi nga xam ne dañ ko doon dëgëral si xam-xam waaye ab damu-damu bu rëy xew na si diine ji ngir sang bi nga xam ne gaañu na maadaama borom xam-xam su gaañoo <clears throat> ñëppay jooy kon jamono jooy na kon mën ngaa wax ne baka zamanu bi maana baka ahlu zamani ñooñ jamono jooy nañ ñu bax ñi jooy nañ xatta asamaau asamaan si jooy na parce que julli sax su dee asamaan dana ko jooy sagantumaa nag borom xam boo xam ne julli la kii nag yelloo na asamaan jooy ko bakat jooy na bixaarun ay géej wa ahlul ardi ak waa suuf si xaatibatan mboolam seen xataa baka ba jooy man baka ka jooy fil kawni si nekk gi jumlatihi mboolem seen rabu géej yaag géej yi yëpp jooy nañ ndax deeg sangi bi waa suuf yëpp jooy nañ ndax deeg sangi bi ba mboolem lu yàlla bindi malaaka yaag yëpp jooy nga képp ki nga xam ne yàlla bind na bind na la jooy nga ma nga wax wala boog ñu si ëpp jooy nañ parce que jullit ñi rek gëmuñu yàlla malaaka yi nit ñi rek gëmuñu yàlla malaaka yi si ñu gëm yàlla lañ bokk rabi àll yi jamaa daal yëpp si si ñu gëm yàlla lañ bokk maadaama jullit yaa ngi jooy nit ñaa ngi jooy malaaka yaa ngi jooy kon waaye jamaa daal yaa ngi jooy kon mën nañu wax ne kon kaw nu bi yëpp ngi jooy ya gurbatal ilmi hoona tumuranke xam-xam lama maata bam gaañoo qaiduna suñi njit bi xutbu raxa koo xam ne mooloon mooloon njiitu machine bi mooloon yëngat mooloon yëngat machine bi kaashiful asa ki nga xam ne mooy wuññi njaqare yi li quwwatihi ngir kattanam sa xam-xam way woonaa tumuraanke xam-xam ndaxte ton bu rëy dem na si xam-xam ay mujalladaat ay téere téere dem na démb maa ngi julli takkusaan ba sujjoot rek kalaat ne jamono ji may julli ñu ngi rob Oustaz Ahmed ñu ngi koy rob ñu ngi yóbbaale ay mujalladaat ay téere ñu ngi yóbbaale ay irfaan ñu ngi yóbbaale ak mbaax ndax si comme làq kooku lañ suul ma ne cey ndeysaan ñu ñun waa àddina ñoo gën a ñàkk sens parce que ñu kàccoor ñi ñoo fi gën di des chaque jour borom xam-xam yaa ngi dem te ku baax rek da dem yóbbaale lu bëri sa xam-xam ñun nag ñu ngi fi tumuranke bay bëgg a dee keroog loolu laa xalaat ma ne nag kon nag yaa xurbatal ilmi woo naa tumuraanke xam-xam ndax keroot lañ suulaale lu tax ma ne xam-xam tumuraanke na parce que kañu jiite woon si xam-xam ñun ñun ñu naw ko lool naw xam-xamam naw jëflanteem si xam-xam kooku dem na ki nga xam ne bu nekkee borom xam-xam yi ñi yëngu si xam-xam taxaw nañ moom moo leen jiite parce que moom mooy yëngal machine bi koo xam ne suñ tiitee si xam-xam ba xamuñ masala si moom la ñuy dellu mu wuñuñ si suñ jàqare ngir ndëggoom si xam-xam ak kàttanam si xam-xam ma ne chamsul maarif janti maarifa yi moom mooy janta maarifa parce que ku si amoon ndëggu la su jëfee nga xam ne kii borom maarifa su waxee la su waxee nga xam ne kii borom maarifa maarifa goo xam ne maarifa gu mat sëkk la si jëf ak si xam maarifa dafa amoon maarifa bu mat si waxam dafa amoon maarifa bu mat si jëfam maarifa bu mat la amoon si waxam mooy lan dafa xam xam-xamu maarifa ba pare jaxase ka xam-xamu sharia bu mat sëkk waaye daf loon jëfu jëfi daf loon jëf jëfi ku xam yàlla ànd ak di ko jëf jëfi ni ku xam sharia kon ñaarit la dajale Baay Ñas radiyallahu anhu wax nañu si euh, Riyadu Salihin dékkoon si Riyadu Tafsir asif Baay Ñas radiyallahu anhu wax nañu si Riyadu Tafsir ne kenn ki matut mooy kan mooy ku yem si sharia kese waaye keneen ki matut mooy kan mooy ku yem si maarifa kese ku mat mooy ku dajale ñaar kenn mooy ku dajale ñaar yëpp mooy koo xam ne mi ngi jëfe sharia di jëfe xaqiqa oustaz Ahmed moom ñeent la dajale mooy dafa dajale sharia ak maarifa si jëf dajale sharia ak maarifa si xam moo tax soo nekkee ak moom mu jëf sharia boole ko ak xaqiqa nga xam ne kii ku mat la si wàllu jëf soo jàkkaarloog moom mu wax dana wax sharia buñ jaxaseeg xaqiqa nga xam ne kii ku mat la si wàllam wax si xam parce que borom xam-xam bu la gën a mat mooy ku xam maarifa xam sharia jëfkat bu la gën a mat mooy ki jëf sharia jëf xaqiqa kooku nag moo dem mane ne chamsul maarif yi yi dem na man ki nga xam ne faadat bëbbu na maarifuhu ay eh, ay xamam koo xam ne maarifam dafa bëbbu si taalibe yi ba ba gaa yi tuddee ko murabbil qawmi dégg nga koo xam ne mooloon loonu yar taalibe yi ba gars yi tuddee ko al ustaaz ñu bokk moom faydu bi ñëpp ko nangul ñu bokkut ak moom faydu bi ñëpp ko nangul ma ne chamsul ah, maarif yi dem na man ki nga xam ne faadat bëbb na maarifuhu ay xam-xamam charqan si sox wa charqan si penku wa garban ak si sox bila shakkin si lu benn sikki sàkka li izzatihi ngir dëgëram li izzatihi ngir teddam si xam-xam tedd bu mu tedd si xam-xam moo ko may li yëpp xibrum foode la foode foode mooy borom xam-xam bu mag min alsharci si sharia wax naa la ne la ku amoon ndëggu la si maarifa mooy shamsul maarif man faadal maarifahu sharqan wa garban bila shakkin li izzatihi waaye nag ku amoon ndëggu la si sharia mooy lan xibrun foode la woon kàngaam la woon min alsharci si sharia bi waaye tawdun doj la woon saamixun bu yëkkatiku te dëgër jamaa la moo tax ma wax loolu ma ne ndax jamaa dajale na albahrayni ñaari géej maraj albahrayni yaltaqiyaan mooy dafa dajale ñaari géej zawqan si mos amiqan bu xóot za ma wax am na ko li himmatihi ngir yitteem dafa dajale ñaari géej baxru sharia wa baxru alxaqiqa te bu si nekk xamu si tuuti rek de dafa dem si charia xam si lu kóotu kóot kóot ànd ak mos dem si xaqiqa xam si lu kóotu kóot ndax yittim gu bëri moom nettali nañu ne moom ku euh, ku mënoon a jàng la waaye ku gaaw a mokkal la ku yàgg sa xam na saada sang na al anaami fii saada mooy nekk na sang al anaama si kaw mindee fii bi ilmihi sa xam-xamam wa xidmatihi ak si liggéeyal faydu bi ak sëriñam ak liggéeyal yonent bi ak liggéeyal Seydina Cheikh ak liggéeyal yàlla xataa badaa ba mu feeñ nayiran di aji leeral lanaa ñeel ñu li bahjatihi ngir taaram li bahjatihi ngir leeram ba tey sas ahmad dama ne soo ko xoolee nga xam ne kii sang la si mbindeef yi sang si sang yi su waxee nga gis ak sangam su jëfee nga gis ak sangam su jàngalee nga gis ak sangam waaye su toogee nga xam ne kii kat sang moo toog si ñaar la ko amee si xam-xam sharia ak xam-xam ak xam-xamu xaqiqa mi benn si xam-xam gum dajale xam-xamu sharia ak benn si la amee sang googu noonu ak si nekk taalibe nekk taalibe di liggéeyal faydu baak tariqa baak lislaam si la amee sang googu ba mu amee loolu nag mujj nekk bidiw mujj nekk weer mujj nekk jant bi nga xam ne moo ñuy leeralal suñu yoon man gis naa koo xam ne nekku taalibe bi bay waaye toog nañ yenn weer yi nga xam ne am na benn soow Oustaz Oustaz Ahmed moom rek lay taal di déglu lu tax ñu ne kii damaa neex lu tax wax ji wax ji muy wax damaa neex te nekku taalibe bi Euh. mi ngi noonu maata dee na alxalimu ku lewet wallahi ku lewet dem na wa baata mujj na alxusnu njàqare aayatanaa di suñu mandarga koo si xool rek mandargaak njàqare mi ngi feeñ moom wallahi soo gisee dëjëm bi nga xam ne ñii jàq nañ sëriñ yaag taalibe yaag mbokk yi ñëpp jàq nañ ndax ku dem maata deena alxalimu ku lawet wa baata mujj na alxusnu njàqare aayatana di suñu mandarga wa damu ronq sama ronqañ mun hamirun aji dotteeku la li ajli rexlatihi ngir dem gum dem ngir laxas gum laxas ku lawet dem na ba koo si xool gis mi ngi jàq waaye nag sama ronkoñ yaa ngi bëbb ronkoñ wali yi ñu ngi bëbb ronkoñ borom xam-xam yaa ngi bëbb ronkoñ taalibe yaa ngi bëbb asamaan ak yaa ngi bëbb ngir dem gum dem ustaazu Ahmed Ba moom moo dem arsi moom lay marsier li lawatina ngir suñu njàqare wallahi njàqare moo tax ñuy wax wallahu yàlla aatihi aji dikkee la ko yàlla na ko dikke ridwaanan ak ngërmande bi rahmatihi si yërmande yàlla na ko yàlla dikk ngërmande gu mat sëpp gu ànd ak yërmande yàlla na bokk si ñi nga xam ne yàlla dafay wax ne yàlla wax na seen xaq ne radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla gërëm na leen ñoom ñu gërëm yàlla yàlla na bokk si ñi nga xam ne yàlla wax na seen xaq ne inna alladina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan xaalidina fiha laa yabguna anha xiwalan ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te di ko topp ëllëg ajjanaay firdawsi moo nekk seen saxuwaay te la chekk ne si loolu la bokk parce que yàlla wan nañu ko si dëjëm yàlla wan nañu ko si dundam maata deene alxaliifu xarit ga xaliifu cheikhi te mooy xaritu sëriñ ba xaritu eh, Mawlana Cheikh Ibrahim Ñas la woon parce que Baay Ñas radiyallahu anhu moo waxoon ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannati alxuldi bila buhtaani ne ku ma bëgg wala mu gis ma si ajjanaay béel si lay dugg sax fa loolu nekkut naxeel nekkut nar bàyyi ñu lum namm si euh, si bayti boobu képp ki nga xam ne gis na maqaamaam gis lu ko yàlla may nga topp ko sa di jëf lam lan jëf teg tànkam fa mu tegoon tànkam yow danga nga dugg gu moom moom àjjana gu muy dugg da nga fa dugg parce que jëfam nga jëf parce que borom bayti bi waxoon na ne euh, law kaana xubbuka sadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu mutiu sa mbëggeel sa mbëggeel gooy woote ne da nga kaa bëgg sa soppi bu nekkoon a dëgg la danga koy topp sa lam nekkoon parce que képp ku bëgg da ngay sa soppe lam bëgg képp ku bëgg rek képp ku bëgg nit da bëgg lam bëgg soo bëggee bàyyi da ngay nekkoon si lu mu nekk da ngay jëfoon lam loon jëf da ngay gis la muy gis da ngay waxee nu mu loon waxee da ngay doxee nu mu loon doxee moom nag bëgg na bàyyi lu tax parce que tànk yu bàyyi nekkoon si xam-xam ak si jëf si la nekkoon kon mu mën nañoo wax ne moom dëggul maanaam dugg na si ñu bàyyi wax ne wa man yuhibbu nii wa yaraani moo tax kon ma ne xaritam la parce la chaque ne bàyyi doo ko bëgg jaar si fu mu jaar moom mu ñàkk laa bëgg comme que ne moom bëgg na bàyyi ba jaar fu bàyyi jaar kon bàyyi bëgg na ko te su ko ko def muqaddam bi nga xam ne ñëpp ko ràññee si yoonam bi ni su ko bàyyi bëggutoon xalifaam yi nga xam ne ñoo doon ñoo ko doon duñ ko teg fi nga xam ne kawe na lool ba su fi bàyyi ba nekkoon zahiran dégg nga noonu lay jëflanteeg moom gis nañ ne xalifa bu fi jaar nga jamono xanteeg moom rek da nga jëflanteeg moom jëflante bi nga xam ne jëflante bu ñëpp naw la ngir kaweem ngir xam-xamam ngir ndëggoom fa yàlla moo tax ma ne maata deena alxalifu xarit ba xalifu cheikh te mooy xaritu sëriñ ba taalibuhu di taalibeem taalibeem dëgg lan mooy taalibe parce que Baay radiyallahu anhu moo wax ne taalibe moo gën a jafe kibritul ahmar parce que charte yi charte yi mu taaj pour nga nekk taalibe dafa bëri yow da nga da nga jëfe sharia jëfe xaqiqa doo xam yàlla ba pare tourné di jëf jëfi ku xamul yàlla doo ko doo nekk taalibeem ba pare di ñàkkee teggin kenn doo doo nekk doo nekk taalibeem ba pare di jëfi jëfi ku rekkeeku te Oustaz Ahmed loolu yëpp mucc na si ba mu si muccee ba pare teg si xam-xam gu mat sëkk sharia teg si xam-xam gu mat sëkk te mooy xaqiqa teg si jëflante bu rafet kon kooku taalibe yam la kan mooy mooy ki nga xam ne dajale na dajale na lii ma wax yëpp si jëflante bàyyi na ah yow yaa ngi doog a nekk sama taalibe naalal mun a man qad ataani awalan wa axiran ya axiran mooy ki nga xam ne dikkal na ma moo xam mu dikkal ma sama njël benn mbir wala si mujj ga ñoom ñëpp jot nañ seen bébét waaye kañ la ñuy jot seen bébét nekk sama taalibe bi mooy suñ defee charte yi ma la wax Oustaz Ahmed nag seet nañ ne kon moom jot na mbébétam parce que lu bàyyi waxoon pour nga nekk taalibeem nekk na sax kon taalibeem bal muqaddam la charta yi muqaddam yi dajee na si moom charta cheikh dajee na si moom dégg nga <coughs> lépp dajee na si moom parce que Baye dafa waxoon ne euh, sëriñ bu xam yàlla xabiran naasihan kaamilan irfaani imaaman salihan lépp daje na si moom maata dee na ba xalifu cheikh te mooy xaritu ba taalibu taalibuhu di taalibeem barhaama barhaam ñes aani laa nam si sëriñ wax min si lu dul benn defee mooy jumte di faydatihi ngir faydaam xaritam la de xaritam googu nag tey moo gënaatin yàlla na ko teeru <clears throat> ida taxaddata nem waxtaan na moom ustaaz zaala dañ na aljahlu réer min xajalin si gàcce réer su muuroon mindeef yi dugg si xolu mindeef yi su ustaaz Ahmed ba ñëwee rek waxtaanal ñu rek réer day mujj daw ndax gàcce ndaxte xam na ne borom xam-xam bu rëy ñëw na weer ko xata azala ba day dindi xuluubal xawmi xolu nit ñi min shibahin si lënt lënt ba lënt lënt bu nekkoon si xolu nit ñi da koy dindi ngir xam-xamam yu jilluhu da koy màggal xibbuhu soppeem wa xibbuhu ak noonam alanan si bëreel alanan si biral li qurbihi ngir jege gum jege xadaratal mawla péeb yàlla ba bi xudwatihi ay jéegoom ma ne <clears throat> képp ki xam ne soppeem nga da koy màggal ndax foraayam waaye képp ki nga xam ne noonam nga da koy màggal parce que mënoo kaa def lu dul màggal da ngay wane màgg ngay wane màggaayam lan moo tax ñu koy màggal ngir jege gum jege péeb yàlla bi si góorgóorloom si ay jéegoom parce que Seydina Cheikh radiyallahu anhu nee na mbir mi cër yàlla kenn du ko am si nank si góorgóorlu lañ koy amee moom nag góorgóorlu na ba am ko ànd ak ngëneel ak yàlla zalika fadlullahi yutihim man yasha ma ne laqad xawaa laq na maa xawaa lam laq fa naa la mu daal di jot martabatan ak martaba bu bu kawe lillaahi ngir yàlla laay waxee lillaahi si yàlla laay géñ maa qultu waxuma fi raybin si benn sikki sàkk wala safihin du caageen dese sa saxma làq na lam làq sa xam-xam ba mujj am martaba li may wax rek lii may wax ngir yàlla moo tax ma koy wax wallahi waxuma si benn sikki sàkka wala bokk si xel mu muuru ndax laqad xawaa laq na maa xawaa lam laq maa ngi dégg nga nakira la li tafxim dama kaa lëntal ngir wane lam laq rëy na yaani laqad xawaa maa shay'an aziman te ngir yàlla lillahi rek ngir yàlla moo tax may wax maa qultu waxuma fii raybin si benn sikk sàkk wala safa hindu caagin dese oustaz kal baxri comme géej fii mawjihi si si dusam géej soo jàkkaaroo géej nam feesee ànd ak ay vaggam nam mel noonu la oustaz Ahmed Ba mel si xam ko wa sabru muñ day danuhu mooy euh, day danuhu baaxam salam nekk mooy si diin al salam nekk mooy si faydu ñu bëree ngi taxaw di ko ŋàññe si bidaa ngeen nekk si réer ngeen nekk si këree ngeen nekk li ngeen nekk nekku dëgg waaye moom terewut gis nga ko si mboolem télé mu taxaw di défendre faydu mu taxaw di défendre l'islam mu taxaw di défendre tariqa ànd ak ŋàññ gu koy nit ñi di ŋàññi si si lu ngeen nekk nekku dëgg wala da ngeen bidaa te te loolu taxul mu deltu ginnaaw ba dafa muñ waxe nit ñi continuer défendre googu noonu ba tey yàlla jëlee ko kon nag moo wa sabru muñ day danuhu mooy mbaaxam man ñooñu noppi kon kooku si muñ la génne àdduna lu koy nit ñi di wax taxut mu deltu ginnaaw si lim nekk bal dafa gën a dem si kanam li nit ñi di gën a teg si der bi lu ñaaw moom mi ngi gën di wax lu baax ma ne kal baxri comme géej fi mawjihi si euh, duusam wa sabru muñ day danuhu mooy baaxam mbaaxam lu tax ma ne géej la waaye muñ kan la parce que géej dafa nekk ki nga xam ne dafa bari ndox daal di am fulla géej soo ko fekkee fa nekk lay nekk palaasam boobu noonu lay nekk taxaw fa na deng waaye nag loo ko sànni si lu ñaaw si ay mbalit wala lu bon da koy waat sa tefes ba sa sax men nag ma ne géej la lan moo tax mooy xam-xam lu gu fees dell nekk géej nekk sa lam nekk nag te muy diina lislam ak tarixa bi ak faydu bi bu fekk kenn si lu ñaaw lam nekk bal sa lam nekk nun lay nekk comme géej lu mu nekkee si palaasam moom nun lay nekkee si euh, barabam géej dafa nekk géej géej dafa nekk géej ba pare taxaw fam doon maan taxaw fam nekk dëkk fa Oustaz Ahmad dafa nekk géej si dafa nekk géej si xam ba pare nekk si lam nekk te mooy diine lislaam ak tariqa bi ak bi géej loo ko sànni si lu bon da koy génnewaat si tefes bi moom Oustaz Ahmad loo ko sànni si lu ñaaw dana ko dàqee ak xam-xam ak si muñ ak si tariqa ak si xikma kon géej la lu tax ma ne muñ kan la géej mën nga saa dugal lu nekk mën nga saa dugal lu nekk moom mën nga saa dugal ay boto yu ngand ay gaal yu rëy du tere moom du mos a tawat sa sa Ahmad géej la ba pare waaye loo ko teg mu tegoo ko lu tax ma ne géej la géej lu mel noonu soo duggee si ron soo duggee si roon da nga fa fekk ay wurus yu dul jeex da nga fa fekk ay jën yu rëy da nga fa fekk ay njëriñ yu dul jeex Moussa soo duggee si biiram da fa fekk ay masala xam-xam ay mbaax yu dul jeex comme géej la lu tax ma ne géej la géej moom la ñuy yonent bi wax ne ndoxam lu laab la mën nañ saa jàpp mën nañ saa sangu waaye tamit middam mooy lañ lañ faree si ay jën ak rabam lu dagana lekk la Oustaz Ahmed tamit jëmmam si boppam lu laab la waaye lay génnee si moom tamit lu sell la te laab kon géej la loolu moo tax ma jox melokaanu géej <laughs> lu tax ma ne géej la parce que géej dangay dugg si moom jëriñu génnaat waaye doo ko fontoo soo ko naree fontoo lab si biir Oustaz Ahmed géej la lan moo tax parce que da ngay dugg si biiram nga jëriñu si xam-xamam ak si mbaaxam waaye soo ko naree fontoo yàlla moo lay duma si martabaam dégg kon tey géej na wal xaqu dëgg gaayatuhu mooy doytuluwaayam wal xaqu yàlla gaayatuhu mooy doytuluwaayam ida staanta soo dimbali ko loo bi si moom bis boo ñëwee si moom pour mu dimbale la si alal si xam-xam ci mbaax da nga xam ne yàlla rek moo ko tax a jóg dana la dimbale ba ba si fu dimbale yem amaa soo ñëwee pour leneen safaan ba du la mën a dimbale parce que moom yoon bu mu jaar ak yow yoon boo jaar bokkul wallaha yàlla asalu ñaan an taxsha wu mu dikkal ko rahmatuhu yërëmandeg yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yërëmandeg yàlla muur dikkal ko yal na ko ngir an taxshaahu mu muur ko wa cheikhu Seydina Ahmed Tidiane kaafiluhu mooy ku ka mooy ku ka warlul àjjana ak ngërmande yàlla ak yërmande yàlla parce que nekk na nekk na si tariqa bi nga xam ne tariqa bu génn na génnee na àddina si tariqa bi nga xam ne tariqa bu am garanti la tariqa bu am ay mbégal la maanaam ay bégle tariqa boobu si la génne àddina parce que soo demee si kash kii ni si kashful hijab bi bu Euh, Seydi Alxaaji Ahmad Sukayri ji Atijani ma ngi fay wax ne euh, Seydina Cheikh nee na anna man axada wirdana wa daama alayhi ila almamaati yadxulu aljannata bi gayri xisaabin wala ciqaabin huwa wa waaliduhu wa azwaajuhu wa durriyatuhu in salima al jamiu min al intiqad nee na képp ki nga xam ne jël na suñ tariqa bi sax si ba génn àddina moom si boppam dana dugg aljana moom waa jooju ay jabaram danañ dugg àjjana ay doomam danañ dugg àjjana ak njabootam waaye si charta ñooñu noonu mucc si dingat Seydina Cheikh moom nag seede nañ ne ku génn àddina si tariqa tijaan la kon su ma ne wa cheikhu Seydina Ahmed Tijaan kaafiluhu mooy ku ko garantal kon si foofu lañ ko teg moo ko garantal lan fawzan texe bi xurmatihi si xurmaam si darajaay si si darajaay Seydina Cheikh bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jox wirdo bi jox ko garanti yi ne ko jottali ma ko talibe yi si xorma googu noonu la ko Seydina Cheikh garanti li Seydina Cheikh ku for la wax na euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah. euh, wax na euh, Seydi Ibnul Arabi ad-Damrawi at-Taazi ne ko lawlaa mahabbatuka fi Tijaani maa ra'aytani qattum ne ko bu taxutoon mbëggal gu bëgg Seydina Cheikh doo ma mos a gis nettali nañ ne Seydina Damrawi dafay <coughs> dalaan gis. Abdullahi nettali na ko si kashif euh, si kashful hijab euh, sayidi Ahmad Sukayrij nee na Abdullahi nettali na ko nee na sayidi Addamrawi dafa laan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si bis bi lu toll ni ñaar fukki yoon ak ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane euh, Seydina Cheikh na ko mu sonnee si Damrawi parce que moom yonent bi ku bëgg Damrawi la. bëgg bëggeel gu ko yonent bi bëgg noonu yonent wax na ko ne ko gis goo may gis nii bëgg goo bëgg Seydina Cheikh moo tax kon Seydina Cheikh noonu la amee daraja comme nag moom Seydina Cheikh la bëggoon Seydina Cheikh la topp garanti yi ma la wax kon tabe na si kawam kon kay mën nañoo wax ne <coughs> kon koy mën nañoo wax ne wa cheikhu cheikh bi kaafiluhu mooy ku ko garanti fawzan texe bi xurmatihi si xurmam kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla tabbil yërmande si kawam ala nabi yàlla nekk si yonent bi wa alihi ak waa këram mada zamani di rab jamono azka salaamaani gën saa sell ak julleem julli yàlla ak xewlu yàlla daa iman ba faw bi rahmatihi si yërmandeem julleeg yàlla salmal ak yàlla yàlla nekk si yonent bi ak waa këram di jamono ala tijani yàlla nekk si sayidina ahmed tijane maal ashaabi ànd ak mboolem taliba yi ñoom sayidi euh, damrawi ñoom Seydi eh, dégg nga eh, Abdullahi ñoom eh, Seydi Ahmed Sukayri ji Sukayri ji ñoom <coughs> Seydi dégg nga Ali Harazimi ñoom Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhum ñoom dégg nga Seydi Mohamed al Habib ñoom Seydi Mohamed al Kabir ñoom ñëpp mboolem kàngaam yi si tariix bi yàlla na yàlla Euh, tabbil si ñoom yërmande kon ala tijaan yal yal nekk si Seydina Ahmed Tijaan ma ala asxaabi ànd ak euh, dégg nga euh, saxaaba yi jumlati maanaam ànd ak ay saxaabaam jumlatihim mboolem seen ximaayatul xaqi kaaraangeeg yàlla min aada yi si noon bi satwatihi si songoog yàlla si kàttanu yàlla nee na Seydina Ahmed Tijaan ak i ak yi yal na leen yàlla xaar si noon bu bon dégg nga si noon yàlla fegal leen ko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 kon ñu jaaral si beneen yoon rek ne baka zamanu ala fuqdaani umdatihi ya hulmatan xadatat li mawti gurratihi bakat bihaarun wa ahlu lardi qaatibatan xatta baka man baka fi lkawni jumlatihi ya gurbat alcilmi lama maata qaa'iduna qutbu ruxaa kaashifu lasaa liquwatihi shamsu almacaarifi man faadat macaarifuhu sharqan wa garban bila shakkin liizzatihi xibrun min alsharci طود شامخ جمع البحرين ذوقا عميقا ذا لهمته ساد الأنام بعلمه وخدمته حتى بدا نيرا لنا لبهجته مات الحليم وبات الحزن آيتنا والدمع منهمر لأجل رحلته أستاذ أحمد أرثي للوعتنا والله آتيه رضوانا برحمته مات الحليف حليف الشيخ طالبه برهام أعني بلا وهم لفيضته إذا تحدث زال الجهل من خجل حتى أزال قلوب القوم من شبه يجله حبه وخبه علنا لقربه حضرة المولى بخطوته لقد حوى ما حوى فنال مرتبة لله ما قلت في ريب ولا سفه كالبحر في موجه والصبر ديدنه والحق غايته